Bocar Seydou Yàgg DG police mi ngi fii ci Amérique ci famille ci soxnaam nee nañu nag soxna si New Jersey la dëkk wóoruma ñu ngi koy wër kenn ku nekk ci yéen ku xam adresse bi nañu ko wax sénégalais yépp ñu dem daje fa Bocar Seydou Yàgg le DG de la police de Macky sàll ñu ne mi ngi fii ci Amérique ñu ne vendredi la fi dugg si vendredi la dugg si fii ci Amérique vendredi la dugg si fii ci Amérique Bocar Seydou yag le DG de la police ñu ne mi ngi Amérique nañu fexe ngir yàlla ngeen xamal ñu adresse am fi mu nekk ñun ñu dem fofu manifesté wu ci buntu këram pour dëkkandoo jabaram yi xam ne naankatu deret moo fiti Amerik, ci Amérique yor fi soxna yor fi ay dom di rey suñu ay dom di rey suñu ay soxna di tëj suñu ay doom loolu bëgg naa képp ku nekk ci yéen lii fexe leen lépp loo leen man nañ ci fexe ñu xam ko jabar ji keneme la sant keneme yéen ñi am ay xarit yu sant keneme Amérique bu nañ ci boole sentiment papaam député la woon dégg naa keneme député bu sant keneme s'il vous plaît man C'est man pour nous dem nous manifester Nous lepp man ñu dem manifester ci buntu Kerem. voilà nous on n'est pas des personnes qui sont violentes mais dinañu dem li nekk ci ñun suñu nakar bi ñu ñaxtu ko buntu këram inshallah rabbi buntu Kerem. té duñ fa bouger tant que détenu politique yi nous ñu leen Sénégal ñom ñep parce que fi mom Amérique la fii moom yenn banditisme du jall fi fi du fi jall banditisme du jall fi nañu fexé lepp luñu man dégg naa Seydou yag. le DG de la police est ici aux États-Unis d'Amérique donc ma ngi ñaan ñep képp ku xam fu mu dëkk képp ku xam dëkk vraiment fexé len lepp man ñu jot ci information boobu ndax ñu ngi rey suñu doom yi ñu ngi gaañ suñu doom yi ñu ngi tëj suñu doom yi injustement président Ousmane Sonko 17 jours de grève de la faim nangootul sax soin